kachi UK, Europe, US, Canada Switzerland ak àddina wërngal kep ak suñu kay xaliss bu maga bi nga xamne dafa wor gaw te noppale fi ci bir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ci ñetti fuk ak ci bir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jottum xaliss bi nga xamne ne kenn du ko saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mëna bindu ci si app bi di Supersonics Money Transfer app da ngeen mëna a ci si money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. Gambian Talents TV root ndewenal leen wa de defoon nañ ko daaw dañuy baaxental spécial ak Gambian Talents TV dunduroo benn télé yi bari neen waaye bokkuñu façon Gambian Talents rek du doy bi des asalaamaaleykum askan wi ma la Nabiya Sarr taxawaata leen fii nii na tey moom dama leen génnalaat leen seen spécial Tambambalu Show seen spécial Tambambalu Show bi nag tey kan laa leen war a andi tey DJ Prime laa leen andi képpalu leen dem si DJ Prime rek di ngeen ko xam te dégg nañ ne si Gambie bi ñu ne DJ duñ dee serious programme buñ dem rek dañ fa dee am jaaxa te ak tamit dinañ waxtaanee parce que gis nañ ne Gambian musique tamit gars yi léegi Gambian musique mu si kaw ñëpp a ngi follow Gambian musique ñëpp dañ dee feetal stade bi yëpp pour di wane suñ loof bi waaye soo leen bëggee xam lan la DJ yi dee def ak artistes yi rek ak yéen jafe-jafe la gars yi am ak artistes yi rek toppale ñu si biir ñu waxtaanaa DJ Prime moom dina leen leeral rek. asalaamaaleykum euh, di nuyu Gambian si yëpp you know di nuyu all the Gambian music lovers euh, Nabia maa lay nuyu bu baax a baax a baax you know di nuyu fans yi ñuy seetaan. am um, Gambia Talent TV you know fii si Gambia uh, man la seen doomi ndey uh, DJ Prime you know yeah. ah Prime bala ñuy commencé waxtaan bi rek dama bëggoon comme nga wax ñu yow yaay kan ak DJ Prime comme naka la starté ak life am daal life career. yeah um, thank you so much um, kontaan si question boobu tolop yeah DJ Prime Gambian ndaw la fii la judo maa ngi tudd Kemo Jallow you know born and raised in Gambia from Serekunda fii. you know um, fii laa jàngee maa ngi jeexale Glory Baptist you know foofu laa graduaté and am um, lu ma dugg si Gambia music bi moom daanaka daal di ma nekk xale la just for xam nga fall in love with Gambia music you know ak loo doon ak xam nga dama daan déglu Gambia music di dem ay programme you know because time boobu noonu nekk doon CD ay cassette la woon dama daan jël cassette sax xam nga di ko record di record ay Gambia music shows yoo xam ne su ko defee su ma amee free time ma di ko dégluwaat xam nga you know so foofu laa commencé xam nga di fall in love with the music xam nga even time boobu sax it was really hard because time boobu noonu pour nga gis Gambien si xam nga ñu follow Gambia music daf la over la hard but man moom dama nekk koo xam ne like dama ba fiir xam nga comme loo xam ne Gambien la moom duma ko leen nangoo bàyyi si gannaaw so foofu laa commencé xam nga di. di déglu Gambia music ba tey yàlla def na tey ma toog ba nekk ay presenter et DJ and presenter xam nga so am naa si expérience su bëri because yàgg naa si and um, am naa si at yu bëri bëri bëri bëri bëri te ma si sant yàlla bu baax waaw. Ah, dégg nañ loolu comme yow sa musique carrière comme naka la liyee parce que gis nañ ne comme da nga love Gambian musique ndax yow soo dee DJ Gambian musique rek nga dee DJ ndax. waaw um, first of all uh, ma commencé waat um, comme naka laa dooree you know 2010 um, fekk amoon na radio bu ñu lay ooyee Hilltop uh, fekk mi ngi woon suma boor foofu noonu am Fajikunda foofu laa njëkkoon a dem bot ma demee dañ ma attaqué woon si benn DJ mooy DJ Jiboy bot dama laan toog le si biir studio bi la bot du dama laan wax xam nga moom tamit Gambia music lam lam lam play foofu laa nekkee xam nga di study di study then from there 2011 si la bàyyi so si la Star FM ñëw soo bu Star FM ñëwee Sara Camara moom suma broda la mu call ma mi ne ma ne ah am na radio bu ee so dañ bëgg a jël ay some xam nga some some staff ñu mën naa train after from the training de ñu mën naa jël ñu mën naa attaque after ñu staff kaay so noonu laa ñëwee uh, that was 2013 ma ñëw bokk ci training bi like six months of basic and um, another six months of practical xam nga then after that ñu def suñu exam then si leen ma attache so buñ ma attaché ñu ma attaché um, di late DJ Kaal you know maa ngi ko ñaanal yéen a ko yàlla yërëme xam nga yàlla ko xaaree so moom lañ ma joxoon so maanaam moom ñoo nekkoon di COP from there ma ñëw ba taxawal sama boppa then si laa nekk a full Gambia music presenter you know from 2013 ba léegi nii daal Ah, comme ni nga ko waxee rek comme mun nga ñuy wax history ah, Gambie seen musique bi parce que gis nañ ne comme sa wax bi nga ne yàgg nga si musique Gambian musique yow si nekkee comme am nga loo ñu mun a wax si musique musique Gambie. waaw ah, foofu moom naa si kontaan trop eh, naa si sawar trop pour ma wasi si si lu ma gis ak lu ma lu nga xam ne fekkoo ma ko ba jàngee naa ko den xam naa si dara soo ko seetloo like man si man dama lay wane Gambie musique bi comme. suñ generation of music, three height lengo height. Three height. From the 60s to the 70s, you know, to the 80s, that was um, Soon Daddy, Soon Mommy one. li nga mel ni ñoom Suba Eagles xam ñoom Kelewar ñoom ñoom Ifa Mbondi you ñoom ñoo ko dooroon ba ñoom like musique bi teewuñ ko woon li nga xam ne like um, comme comme mbiri xaalis daal ñoom den loofoon musique bi trop xam nga but time boobu noonu soo ko seetloo Africa yëpp du ma ne West Africa but Africa Gambian music we, we are the best especially Super Eagles honestly because time boobu noonu si lu ma jàngat dañ laa dem senegal di fa def ay concert di feesal seen stade bi fees tepp li nga xam ne loolu pour nga def ko dafa over so so ñu foofu la gaa ñëwee after bu gaa ñëwee ba si 90 bi ñoom tam si leen relax so gasuñ foundation boo xam ne at least mun naa continuer from there ñëw ba 96 you know 97 98 ba si early 2000 bi foofu la ñoom ñoom rébellion ñëwee ñoom masla bi you know ñoom Filikijoo fugitive si noonu côté yooyu tamit dëgg am na ñoo xam ne ñoom dañ la ut yoon ñoom yoon leen nekkoon di ut because ñoom dëgg la mënoon nañu woy torop but at the next minute da xool ne ku si tukki rek yow daan li relax ku si tukki daan lay relax so ñoom loolu moo nekkoon gars seen im so 2000 2001 2002 you know ba 2003 yooyu noonu affaire saa noonu dem but after si dafa xala daanu tuuti so big thanks to DJ Mo and um, DJ Mo moom foog naa ne bokk na si ñoo xam ne at least ñoom ñoo ko dekkale waat den si kanam tuuti Black Lens si la gaay ñëw muy waagaan moom tam si la jógee US ñëw Gambia mu ubbi fi plateforme boo xam ne ñu ngi ko ooy open mic open mic boobu tamit soo xoolee right now artistes yooyu gis fii nii ñoom ST ñoom Jizzle you know booy yëpp open mic bi moo leen moo leen moo leen gindi daal moo leen formé daal yeah moo leen formé ak ñoom uh, Tismos you know ñoom euh, ñoom Maïty Diop ñoo ñëpp ñoo gis ñoo open mic bi moo leen formé te noonu la musique bi commencé nag di rees di rees di rees ba sant yàlla tey fu nekk nii ñi ngay feesal ay stadium fans yaa ngi fall in love with the Gambian music because maa loon fàttaliku am 2013 yooyu noonu ñu buñ dooree dañ loon count Gambian music DJ si ñi nga xam ne ñoo lay def musique si radio si da ngaa count benn ñaar benn ñaar ba léegi sant yàlla radio boo cuun every two hours or three hours yaa ngi déglu Gambia music soo loolu sant yàlla bu baax a baax baax la woon waaw te la moo ñu may gën a may jom sax mooy soo toogee mag yi dana dana wax ne Sénégal seen artiste mag yi Gambia la gay jàngee woy Youssou Ndour si boppam daf laa ñëw Gambia fii si sun si Pape Touré dem si yàlla si xam nga you di ko follow di xoos tebam yi ba tey sant yàlla Youssou Ndour right now is one of the best in the world so xale yi jom boobu noonu moo nekk si gars man loolaa wax xale yi jomb leen ci te right now xale yi musique bi dañ xam ne musique business la even soo tukkee sax war ngaa tere nga ñëwaat baag parce que gis nañ suñu néew si lu yi def waaw so right now musique fu mu nekk nii moom sant yàlla bu baax because of soo xoolee tamit compared to before um, early 2000 bi 99 you ba 2001 studio bariwul fi woon I think soo la waa studio fan naa benn ñaar la woon Sénégal lañ laan demee you di mun a record ba léegi sant yàlla studios yaa ngi gën a bëri Gambia. dëgg la soo waxee ñu ne musique dafa seer dëgg dafa seer ba tamit sant yàlla bi léegi doo fee paas dem beneen dëkk loo bëgg yëpp yaa ko fee amee fii si Gambie fii nii waaw soo affaire yi noonu noonu la nag soo wax fanaa ne loolu laa mën a gaada si history yu daal from the beginning to now. ah waaye gis nañ ne comme ñu bari dañ dee wax ne DJ comme duñ dee fulal yenn artistes comme dañ dee sewal gaay ñoom comme top artistes yi rek lañ dee lijjante di dem di dem ñoom di wax ak ñoom comme lu fu gaay war a dem rek ñoom lañ dee ànd waaye comme young artist yi nga xam ne ñu ngi grow up gaay duñ leen dee fulal yow lan lan nga gis. waaw loolu dafa am DJ am because man ku ma xam prime honestly man upcoming artist yi laa lay gën a focus even suma radio si suma am si upcoming artist yi laa gën a focus you tamit am na leneen tam il faut ma wax ko ñun si artist waruñoo toog di ñu xas o di ñu DJ ci ñoo nangu ñoo promote Gambia music o DJ ci ñoo yàq Gambia music dañu wala jox cër fi artist bu fi rise DJ ci la but artist bo xam artist du tok ba ko DJ pour nga gis artist bi sax nga call ko nga invite ko sa show is a problem sen uh, manager mo la wone wa suñu wé dang da ko koo jox fuel you know njëgi pa samba té yow lom promotion nga mi artist bi joxu dara just for the sake of love you know moo tax nga nga promotion nga mi soo gisee tey Gambie yëpp di ko coowee yàlla ñun la waaye artiste pour nga gis artiste jékki-jékki ñëw toog mi ne dafa seesi DJ bi is very rare is very rare ñu ngi ko fee gis Gambie fii ñëpp ñu ngi kaas loolu all the time all the ñu ngi ko wax si radio station si artiste su waree am soxla si DJ mooy mi ngi waajal am show si la moo ko DJ bi di ko neexal waa bro maa ngi war am am show so dama bëgg pour nga jàpp si xam nga balaa balaa after show bi rek xam nga doo ko déggaat waaw so ñuy wax ne waa dëgg la DJ si duñ leen nangoo promote upcoming artist yi loolu dafa am DJ am waaw te loolu nag dëgg-dëgg nekkul lu nice man suma boppa dina ko wax DJs yoo xam ne ñi nga def loolu na gaay bàyyi loolu because of artistes yu mag yi ñoom lu gaay soxla am nañ ko ba pare waaw luñ soxla am nañ ko ba pare so foundation bi lañ war a téye foundation bi suñ ko téyewulee dafa dafa muy ne affaire bi because soo ko seetloo comme mango xam nga comme sorry comme nga am banana waaw xam nga xam nga banane yi iya yéen yëpp ngi taxaw so right now banane yu banaana yu ñor yëpp suñ jeexee te génnewuloo banaana bi nga dugalaa fa beneen that's mean ne doo amaati benn banana so foundation dafa over important so lu may ñaan suma mbokki di yi let's try and focus si upcoming artists bu baax baax si underground artists because right now underground artists lu gars yi def am na yenn big artists yoo xam ne di ko def honestly loolu gis nañ ko fi bari na fi man everyday maa ngi am ay ay conversation with most of these upcoming artists ba soo gisee ñu bari dañ lee bugg a relax because of dañoo wax ne waaw musique dafa seer da ngaa dem studio nga record at the next minute doo am ku la jàppale even nga am play time on the radio is a problem waaw so fanaa loolu daal nañ jéem a bàyyi suñu xel daal ñu gën a ko xelaataa bu baax a baax gis nañ ne comme jamono boobu artistes yi comme gars ñoom comme woykat yi ñoom dañ dee nekk benn be dañ dee mun a def ay collabo ñu ngay woy sax waaye si jamono buñ toll ni kom gars yi dañ dee andi hatred seet diggante yow nga foog loolu lan moo ko waral. waaw loolu moom loolu moom fa ne loolu loolu jikko Gambia la daal because dañ am feebar boo xam ne si xol bi la nekk man naa dem bëgguma suma morom dem loolu moo nekk fii soo seetloo yeneen dëkk yi suñu neighbors especially Nigeria. Nigeria seen big artist right now ñi ngay groupe ñi ngay jël ay xale yu ndaw di méga gaay ñu ñooy naa pousse ñuy dem ba fii Gambia su ma la ko wooyee big artist boo kool nga ne ko dama bëgg a méga gaay collabo laa caaj xaalis te lu mu laa caaj dafa woo bari xam lu mu laa caaj dafa bari hum yu noo la hum yu noo comme yow su nekkee yow yaa ngi ama kii relationship boo xam ne yàgg na dëgg la mu nga ko defaral ba benn artiste bu mun ku garaaw mu ñëw mu bëgg a méga gaay collabo yow nga boo ko caaj loolu loolu loolu nekkul ci yoon loolu nekkul yoon xam nga soo soo demee ay ñoom ay ñoom Sénégal ay Nigeria Ghana right now seen upcoming artist yu jóg right now dafa dafa dafa bëri but Gambia pour nga gis every year upcoming artist bu jog mu mu pop is a problem ñaata at da gis benn artist boo xam ne dafa dafa moom rek la ñoo yaaga xam di ko gis all the time for two years three years four years five years am na yeneen dëkk yoo xam ne every year il faut ñu am benn ñu artist boo xam ne kii la ñoo focus tey ñu pousse ko mu dem next year bi ñu am si keneen next year ñu am mosuloo fee gis ban artiste yi Gambia moo sign benn underground artiste mi na waa kii underground la mi ngi def lu ne ma jàppale ko kan la kan la am you know maybe tam dañoo foog ne waa kii su ma ko jàppalee mu dem rise da dafa daf maa daax a wéy oh, maybe lu moo am man du ma ko am si musique because affaire si wasak la kii lu ko yàlla may ak kële nekku benn waaw ma jox exemple si um, si ST ST bu mu loon door musique fii artistes yu bëri doolaanguñ you know artiste yoo xam ne right now ñu ngi pop dooraanguñ bi ko ST dafa yàgg a grind te daf ko fa xaar daf ko fa yàgg a xaar you know ST mun naa la wax let's am um, about more than fifteen to sixteen years ST mi ngi si music waaw more than fifteen to sixteen years mi ngi si music tey tey he is the first Gambia artist ku fees stadium you know so artistes yi nañ bàyyi loolu noo ñu jàppale ndaw yi ñu jàppale gars yi at least woosaag yi nekkuñ tey mën ngaa am élekel everything xaalis bu ñu am fii la moo des si Gambie bi fii lañ koy mën a invest so neen try loolu ñu jàppale ndaw yi on a on a grand artiste suñu leen jàppalutee dañoo xam nga comme like dañoo give up te man am na ñu bëri demale koo ñu moo ne ñoom ñu ngi give up because of like mënuñoo am ku leen a jàppale studio studio seer na DJ si nekkuñ di leen jàppale soo bëggee collabo doo ko mën a am soo drobee single nga boo ko maquette dokaan um, because of Spotify sax right now sax dëgg la am na artiste yu si am dara but Gambia pour nga gis ni dem online mu dina track is a problem is a big problem so loolu yëpp il faut ñu toogaat ñu defaraat ko daal fu ñu mën a am si njëriñ daal ban jafe-jafe ngeen dee am comme su nekkee comme artiste boo xam ne mu ngi am programme comme maanaam si si stadium bi yow DJ bi yaa ngi bugg a comme nga daddi nga DJ foofu noonu ndax doo leen dee am benn jafe-jafe si nekkee comme artiste mu ngi fa am programme pour yéen ngeen. waaw den den naan am jafe-jafe trop den naan am jafe-jafe trop you know even still now because soo seetloo by right artiste soo waree interview. aris pour mu am programme even do soko interview sa, da fa wara jox sa tag te ku am war lo ñëw si bunta bi di mu di di ak gaay da nga wara dem spécial yi nga tok vip hama because DJ si dañ leen wara jox cër bobu nonu but right now da nga da nga gis ne um, su dafa am yow yo yaay wara call aris bi nga ne ko ah bo nakala suma tag bi nakala oh o suma ticket bi nakala so call dé yo do mëna jot lolu so lolu ñu see am problème bu bari bari bari bari bari honestly because gis naa ne desi yëpp Gambian music DJ si ak presenter si am nañ benn association bu nga xam ne ñu ko roon waaw ñoom jival ñoo nekk suñu ba na a am njëriñ at least artistes yi nañu mun a respect suñu amee soo ñu joñ suñu tàgg because sometimes da ngaa dem sa nga taal si bunta bi nga ne gars yi man la diw ñee ñi ne la yoo la kan yoo la kan yow ban rédo nga nekk duñ mën a yaay kan because of joxuñ la tàgg man toogoon naa ba ay jamono ma ne man du ma demaat Gambia music shows because soo demee dana leen disrespect foofu noonu joxuñ la taag ay next minute soo école gars ñu laa wane waa ñëwal si bunda bi soo ñëwee sa tur ne nga fa teg loolu ne ko respect waaw nañ try ñu respect DJ si nañ try ñu jox DJ si cër bu ñu leen war a jox suñ suñ ñu ko joxee to be honest Gambia music na dem si kanam te kenn du mer gisee Gambia musique bi léegi ak comme jamono boobu noonu parce que comme si twenty years back ak léegi naka la mel. waaw foog naa ne loolu waxoon naa ko si ganaaw comme time boobu noonu ak léegi dëgg dafa utee lu bari sant yàlla bu baax a baax a baax right now moom war nañoo sant yàlla bu baax because studio si bari nañ te right now ñu ngi record ay classic especially this video clip sama visual si. right now ñu ngi am this classic videos yoo xam ne at least mu nga ko teg international TV bu nekk waaw loolu sant yàlla bu baax la but leena may problème dëgg la time boobu noonu studio yi bëri woon waaye am na yenn songs yoo xam ne comme Born African yenn songs yoo xam ne suñ ko player tey dafa mel ni tey lañ ko record lu waral loolu mooy dëgg la right now studios yi bëri na la boo da ngaa count the best studios maybe benn ñaar ñetta most of these studios ñu nga xam ne dañ ko restauré bi ay da ñu am si xaalis ay daal xam nga comme ñu am si tur daal sometimes artiste dafaa ñëw pour record sax doo ko nangoo guide waaw doo ko nangoo guide da ngaa ñëw rek mu fay la xaalis nga problème xam nga record rek dem so loolu nag war nañ see bàyyi suñu xel bu baax a baax ba sant yàlla sa sant yàlla bu baax a baax compared to uh, back in the days because comme ni ko waxee la right now ñu ngi fees a stadium right now radio show tune ñu ngi play Gambian music people are getting to xam love our own artiste yi suñ fuñ ote Gambien si yàggee génn di di sooloof man lu ma lay wax mooy um, Gambia benn fan base lañ am fii nii artiste yëpp benn fan base lañ am soo boo dem same people nga faa fekka soo boo dem same people nga faa fekka because time boobu noonu artiste yi koo gis mi ngi amoon fans club amoon na fi team ji am Manding Empire you know ñoom ñoom Jisul Kingdom bari na ay team grandis xam nga Aces ba léegi fans club yooyu yëpp a tas because dem nañ ba réaliser loolu yëpp amul njëriñ benn aim bi la ñoo doxal mooy pour Gambian Business mu dem soo loolu sant yàlla bu baax a baax la soo lu may ooj lu may um, wax artiste mooy nen try ñu góorgóorlu waaw make research waaw because music nekkul benn fan ñaari fan ñetti fan la dem make research te daf daf may naxari ma gis artiste boo xam ne dafaa commencé woy benn at la mi ne dafaa génne EP au mixtape loolu is totally wrong su ma la waxee am na yenn artistes yoo xam ne big international artist ba léegi gars yi génne ngu benn projet lu ñoo release mooy only singles videos singles videos singles videos te loolu moo leen toj right now ma jox la fii artiste dafa da ngaa commencé benn at rek nga ne waa booy dama bëgg a génne mixé dama bëgg a lonc waaye sooy waxal ne kii mu foog ne waa yow da nga koo oo da nga koo soo artiste yi nañ bàyyi seen xel ñu góorgóorlu ñu focus musique dafa ànd ak musique dafa ànd ak research ak dafa ànd ak gestuwaat dem si kilifa yi ñi nga xam ne ñoo la fa jiitu nga laajte gaay so loolu is very important loolu daal suñ ko defee daal suñ musique bi daal na dem si kanam so loolu ma ne ko suma ah dégg nga ne nga ne comme artiste dafa war a am dafa war a research waaye comme si suñ dégg dégg ak su yuñ dee dégg si nit yi ñuy wax ñu ngi wax DJ comme duñ dee serious comme ñoom programme bu ñu dem rek dañ dee am foofu noonu dañ dee ut jànxa ndax loolu noonu dégg nga. Oh, oh waaw comme xam nga baaraam yi baaraam yi nekkuñ benn so dafa am di yeem ba ñëpp nekkuñ benn am na ñoo xam ne loolu ba tamit xam nga tamit man du ma mun a bilem kenn because nit ki loo bëgg a moom kenn kenn waruloo ko aye nit soo gisee dara ma nga boo ko moom il faut nga dem si. waaw so loolu moom foog naa ne suma. foog ne loolu lu baax la comme foo dem programme rek nga am fa jaaxal loolu dafa am comme loolu dafa mini comme nobuloo ñib di parce que fu nekk rek nga am fa loolu nekkul sa bugg a comme loolu daf dee nekk xemem si lu ma gis. waaw loolu moom dëgg la because soo ko seetloo sa am loolu tax na sa ba yaa neen dari DJ si sax because ñu ngi wane comme DJ si they are not serious waaw even soo buggee ak sa benn gaaw gaaw sax nga ne ko man DJ la ba wane non DJs sama balaa balaa waaye man góoma loolu. man góoma loolu because dëkk boo dem o xeet boo dem am nañu baax am nañu bëb ba so man loolaa gëm am nañu dëng am nañu jub so loolaa gëm so comme la wan itam lu tax dëgg la war nañ see bàyyi xel bu baax a baax because nit ki bul dem all every programme nga gis nit nga ask out loolu tamit nekkul nees waaye tam nit ki soo ko tam il faut nga ask out that's my opinion so I don't ko bëggee bi nga am comme foog naa sa right person bi foogatuma ko mun ngaa demaat beneen programme nga am foog nga ut di fa ut keneen. pour aas ko thank you very much loolu is very important soo demee ba nga xam ne waa am nga koo xam ne she is your right person honestly man si man sooy dem programme téye loxo mi ngeen dem or maybe su bëgg a dem try nga nekk a gor because demoon nga programme bi nga am fa kii. lambo da ngay dema benn programme nga nga fa am ak keneen so man foog naa ne loolu that doesn't make sense daal yeah so ba nu ma ko waxee rek people are waaw so. man man comme ok lenn mooy suma ah, suma problème man pour ma dem programme sa is really is very rare waaw mu nga ko ask ay artiste yu bëri offense yu bëri ñu bëri dañuy wane prime du ma ko lay gis prime fu ma dee dégg la mooy su nekk si radio bi. cause man duma génne kat man luma ma su ma liggéey maa ngi suma kër so gisee ya maa ngi sawra dem so moo nekk so boo xam ne maa ko war a maybe artiste mu jox ma cër boo xam at least war naa dem ma teewee so am bi waaw ya man duma génne kat di dem programme fii programme fii programme fii No, that's not my hobby yeah. la comme yow léegi lan nga am pour wax sa fancy ak ñu ñu nekk di seetaan si jamono bii nii. waaw lu ma wax fancy mooy am fuñ ko téye rek foofu la waaw fuñ ko rek foofu la because soo seetloo lu ñu am tey musuñ ko am you know waaw am like this um, many radio stations they play Gambian music and this um, online TV sama ñu mel ni Gambia Talent TV you know waaw Gambia Talent TV moom dëgg dëgg yéen a ngi def lu nice because especially yow programme bu am daan les dem foofu ak sa caméra crew bi xam nga di interview artistes yi xam nga di wan ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi at least pour dara bu mu so loolu is very important xam nga di jaajëfal online TV si yëpp. di jaajëfal fans yi yëpp ñu nekk si diaspora bi you know ñu nekk fii Gambie fii xam nga support bi honestly gis nañ ko man damaa nekk radio you know ma post ko status xam nga suma suma suma suma fans ñoo xam ne Alice ñu ngi si diaspora bi ñu ngi Europe nii dañ lay overla follow show bi te loolu daf ma lay overla motivate loo xam nga especially su ma defee live nii on Facebook xam nga xam nga ñuy comment noonu daf ma lay overla content loo xam nga te daf ma lee motivate because soo ko seetloo ñun buñ dooree loolu mënuñ ko woon a am buñ buñ doole affaire si around twenty thirteen yooyu noonu soo sant yàlla buñ demee ba stage bi di am loolu noonu a ah war nañ koo yàlla bu baax a baax a baax ñetti di follow Gambian music you know yow tam Nabiya ma laa jaajëfal bu baax a baax you know di di jaajëfal ama am seen seen sen di proprietor of Gam Talent TV mooy Missa Diouf waaw moom tamit yaaga naa ko follow trop moo tamit dafa yaaga lay Gambian music waaw especially maa doon fàttaliku seen Augustine ak Gambia High seen problème boobu noonu ba singaate Friki Joe bu génnee woon songa mi moom mi ngi woon si vidéo bi xam nga so dafa dafa yaaga love Gambian music so su demee daal benn ubbi lu mel nii xam nga so war nañ ko xam nga delloo njukkal daal xam ñu gërëm ko bu baax a te staff si yëpp ay ndaw leen ñu fa liggéey yëpp ay ndaw leen so maa ngi gërëm Gambian si yëpp bu baax a baax a baax mbokk kay comme nu ma leen ko waxee rek ci njëlbeen bi waxtaan nañu DJ Prime DJ Prime na waxal nañu lan la xam si musique yi Gambie ak nakal nakal la staté si DJ yambe ak lan ak lan yu bëri yo xamné def na ko so soo leen xam lan ak lan la wax rek da ngay ñu topa si Gambian Talents TV ñu ngi si Facebook bi ak ah, YouTube bi jaajeen jëf te ngay jagg jagleel suma caméraman bi mom moy def liggéey bu baax bi so so gisee yëpp mu ngee leer yëpp mu ngee feñ mom la mom moy kan moy moy Alassane Ba root ndewenal leen wa de eh, defoon nañ ko daaw dañuy baaxental comité spécial ak Gambian Talents TV dunduroo benn waaye bokkuñu façon Gambian du doy bi talents promotion. The Gambia's first non-profit